luñ ko si waaye dañu koo luubal jamono jooje ci la Macky Sall wax ne sept cent cinquante milliards am na yeneen fanweeri milliards yoo xam ne danañu ko si dugal maanaam trente démb Macky Sall wax ci Kër Massar moo ne day sept yi bëri ci ñoo xamante ni dañoo wax ne dañu koo luubal maanaam dugaluñ ko ci mbënn mi ba ñenn ñi sax di sàkku ñu daal si ubbi ab enquête parlementaire jamono jooje Macky Sall na trente milliards danañu ko si daal dugal ba tey ci biir journal bi Sall démb dig na waa Kër ma Massar ba xolam sedd waaye nag ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllum politique bala ñoo am lu leen neex rek nañu janoo ak askan wi nga xam ne sonn nañ ba maara day taali maanaam di leen dig ay milliards di leen tuddal ay milliards ba tey ci yéenekaay gi moom Macky Sall nee na Kër ma Massar ab département la koy def wax na mbooleem ñi nga xamante ne ay maire lañ ne leen bàyyi leen di joxe bërëb yi nga xamante ne bërëbu ndox la yéenekaay gi di ñu xibaar naan ñu Moustapha mi nga xam ne mooy maire bu Kër Massar bisub démbam bi du ko gaaw a fàtte ndax dañu ko yuuxaloo ba maara day taali otom sax dañu ko yàq ndax askan wi nga xam ne ñoo dëkk Kër Massar ñoom jàpp nañ ne jafe-jafe yi nga xam ne am nañu ko ci mbënd mi maanaam Moustapha Mbeng moo leen ko teg askan wi yeewoo Kër Massar ñoom jàpp nañ ne Moustapha Mbeng seeni jafe-jafe maanaam ngaññam nekku sa moo tax démb askan wi dëkk Kër Massar ñenn si ñoom yuuxaloo nañ Moustapha Mbeng ba seen xol sedd na dem na dem na dema a dem maanaam foo tollu di ko dégg yéen kaay gi de la témoin ak évidence mu xëy di ñu xamal lan ñu yi nga xam ne yuuxu nañ ko Moustapha Mbeng moom Macky Sall wax ji xam ñoo am ay jafe-jafe maanaam au lieu que mu def ni nga xamante ni moom la ñenn ñi def maanaam xuus si ndox mi dem sa ña nga xam ne maanaam ñoo lu ci mbënd mi di waxtaan ak ñoom ak di masawu ak ñoom amul lenn loo xamante ni Macky Sall def na ko ci maanaam Macky daal leen la def ñu baasal ko ab baas ba mu rafet mu dugg di wax ak ñi nga xam na ñooy autorité yi ak sapeur pompier yi ak digg ay milliards loolee la Macky Sall def yéen a kaay gi mu xëy di ñu xamal lan ñu Macky Sall kay dafa mel ni démb dafa bañ a tànk yi laas yéen a kaay nee na Macky Sall li mu def démb ci Kër Massar yomb na Macky Sall ñëw na joxe na ay digéem demaan na yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy di ñu xibaar naa ñu Macky Sall démb ba mu janoo ak askanu Kër ma sar wax na fa ay mesures yu bare bari ngir nag dindi askan wi nga xam ne ñoo nekk ci ndox mi daat nay wax ne jafe-jafe yi nga xam ne askanu Sénégal ñu ngi ko dund ci lu jëm ci wàllu mbënn mi lépp danañu ko saafara ci ni mu gën a gaawee Vox Populi ñu fekk ko fa moom Macky Sall nee na am na lu bëree bëri loo xamante ni moom ci boppam def na ko ngir nag saafara mbënd mi ci réewum Sénégal waaye lépp doyut lii Quotidien na wax ji daan leen la Macky Sall ni ki démb dafa demoon Kër Massar art di politique loolu mooy wax ji yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy di ñu xamalaan ñu Lansana Gagny Sakho mi nga xam ne moom lañ dénk ko ONAS moom nag moo fi taxawoon bëccëgu dara kàmm ne Ousmane Sonko su ko neexee na ñëw ONAS ma leeralal ko xaalis bi ana fan lañ ko dugal Ousmane Sonko woo ko na ko Lansana Gagny Sakho pare naa ngir ñëw ONAS Lansana yaa ko tere neex waaye nag Lansana Gagny Sakho daal xaw ma dañ koo dee xaw ma nañu koo yedd xaw ma pression lañ ko teg waaye dafa woowaat Ousmane Sonko na ko Ousmane Sonko njiitul Pastef Ousmane na ko naam mu ne ko daal invitation bi nañu ko bàyyi ba jëmmi jamono libération yéen kaay nee na Lansana Gagny Sakho dafa daw deuxième dafa ñàlli Dakar Times xëy na ci inondation yeeg 766 milliards yi ana nan lañ ko jëfandikoo yéen kaay gi xëy na ci yéen kaay gi di réew mi ko di jee ñu xëy fekk fa comité de suivi force Covid 19 ñoom général François Ndiaye déglu nañ maître Malick Sall mi nga xamante ni moo yor wàllum justice ndax na xam ngeen ne ci wàllum coronavirus bi ministre de la justice jox nañ ko lu toll ci 400 millions 400 millions la leeral la yéen a kaay gi de la témoin xëy di ñu xamal naan ñu en tout cas njiitu réew di président Macky Sall réunion guddi yi commencé war ka ndax ni ki démb ci guddee guddi Macky doon na réunion ak cadre yi nga xam ne ñoo nekk APR yéen a kaay gi di Sud Quotidien moom la mu gis daal mooy Macky Sall ci boppam mooy def ay dëbbal dëbbal ngir nag ab gouvernement élargi maanaam gouvernement bu yaatoo yaatu boo xam ne ñëpp ñooy soobu sa biir journal bi nee na société civile bi ñoom nee nañu maanaam daal yitte ji ak li nga xam ne moo ñor askanu Sénégal du jamono ji ay gouvernement élargi yéen yéenekaay gi du l'Observateur xëy di ñu xamal laan ñu Souleymane Téliko mi jiite magistrat yu tey jii daan nañu koy convoqué waa inspection générale de l'administration de la justice ñoo ko daal di convoqué tax ñu convoqué ko mooy kàddu yi nga xamante ne yëkkati woon na ko ci procès Khalifa Sall bi wax ne am na ay ndëngte ndëngte yooyu nga xam ne moom la wax ne moom la am loolee moo tax ñu daal di koy convoqué yéenekaay gi de xëy di ñu maître Malick Sall la mu xam le nee na mbir mi mbiri magistrat la te moom nee na yoonam nekku ci yéen i kaay gi du xëy di ñu xamal lan ñu benn xale bu jigéen la ñu bett ci armeelu lu Médina yi mu bëggoon a rey benn doomam bu jigéen boo xam ne benn at rek la ama daat ñu koy defeere benn waay moo si yama waaye nag ba ñu ko dégloo la mu xam le nee na da koo bëggoon a rey ba pare daal di xaro moom xale jigéen bi nga xam ne moo bëggoon a def ñaaw téef boobu ab célibataire la musta am jëkkër waaye am na ñetti doom yéen kaay gi de estat ci mercato bi maanaam jënd ak njaayum joueur gi na ay joueur sénégalais yoo xam ne seeni